am na ñu naan kenn waru koo tëggal ci combat est-ce que yow di nga tëggalaat combat Lac 2. yàlla rek a xam xaw ma ndax dinaa tëggalaat. combat doo ko beddi en tout cas. du ma beddi kenn ñoom samay doom lañu. Hmm. du beddi kenn man. yaa ngi naan samay doom rek waaye ñu ngi naan yaa Gris doo mooy loolu ah seen diggante xaw naa ñagas naqari. non dara ñagasul ko. Hmm. dara yéen sax xëy na yéen a yéen a ko monté woon ba mu ñëw bëgg a ñë ba mu ñëwee ñi ngi xañ ko ba pare wutal loon yéen ko war a wutal combat delloo sa avance ah. yéen a yéen a ko a wutal combat yéen ñi ko monte woon ba mu ba mu yàq combat am fee ñooy wax ni xanaa yéen yéen yéen yéen seen seen seen nuuta seen structure bi nekk fii di tëgg làmb nit ñi amuñ droit tëgg làmb am ngeen ko droit kay bu ah, baax sax bu hmm. baax hmm. mais nag tëgg làmb nag seen ma amul tëgg làmb pour di yàqalaate man man lu may tëggit man ci yoon laa koy teg mais du ma ñëw fekk ba Babacar Fall waxaale combat am guddi ma ñëw fa ko Babacar dégg nga mën naa laa fay léegi te ñëwal ma tëgg laag dégg nga dinaa la yóbbu Angleterre rek dinaa la yóbbu noonu waaw waaw business su demee noonu yàgg ngaa gis kuy dox mbër ma def ma gis nga man du ma def loolu jamais dara jarul ko xam nga combat Luc Nicolaï bii bi mu yàggee am na ay nit Luc mais euh, c'est un sportif jàmbaar la liggéeykat la bi mu nekkee ci jafe-jafe sax am na ñëw ni ma mais doo jël combat bi man leen du ma ko laal su ma mbëri fay woon un million bugguma tant que Luc parewul ci combat bi mbër mu ñaari mbër yooyu bugguma ci kenn tant que Luc ci parce que man du noonu lay wute nit ñi Gaston soo ko soree da nga koy bañ mais soo ko jegee xam kan nga jege soo ko soree nag man soo ko soree nag man nga koo bañ man nga ko taxé lu ne man nga ko dëkkal fu ne mais man xam naa sama bopp mais euh, euh, làmb jeeg mbooloo ma fa dajoo